bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin no del si waar sunu bindu risala te may sunu jotaayu ñaar fukkeel ak benn muy numéro 21 insha allahu taala borom téere bi mi ngi ci bunt bi mu doon jàngalee ci ni ñuy réparé mu fekkee julli am na lu ci yàqu wala loola gaar ci njuumte wa man lam yadri ma salla athalaatha rakaatin am arbaa bana ala al wa man lam yadri ku xamatut maa salla la mu julli a thalath rakaatin muy sikk sàkk naan ndax ñetti rakka ñetti la am arbaan wala ñeent kooku nu def mu ne banaa mu jokk alal yaqiini ca la ko wóor ca la am yaqiin wa sallaata mu julli nag maa shakka la muy sikki fii ci moom wa ataata mu indi bi rabiatan ci ab ñeenteel wa sajada mu sujjoot baada salaamihi gannaaw sërmalam ba Euh, loolu moo ca war maanaam saa yooyu sikk sàkka ndax ñett la wala ñaar wala ñeent wala nàngam lim bi gën a néew nga xam ne wóor na la kooku moom da nga koy jàpp léegi li ngay sikk sàkk nag nga indi ko ñaar laa julli wala benn xam nga benn bi moom wóor na moom li ngay sikk sàkk kay mooy ñaaral bi am na wala amut kon jàppal benn bi nga jàpp ne benn laa julli nga indi ñaareel bi julli gi ndax ñeent la wala ñett la kon ñett yi moom wóor na waa ñeenteel bi wóorut moom ngay indi soo noppee nag nga daal koy sujootal baadu salaam toroxale ko seytaane ngir sikk sàkk soosu nekk sa nekk sa bopp bi waaw kon daal saa yooy sikk sàkk rek dangay ngay jàpp la li nga xam ne moom moo gën a tuuti lim bi gën a tuuti ngay jàpp la ca des la ngay sikk sàkk ndax am na wala amul nga indi ko boo robee sujoot baadu salaam nee na wa man takallama ko wax saahiyan mbir mu muy aji juum sajada mu sujootal mu sujootal ko baada salaami baada salaam waaw saa yoo waxee nga jekk-jekk rek ñu woo la nga daal di wuyu wala nga wax ci julli te tëyoo ko Ah, bu dee yaa ko tey julli gi moom day yàqu ah, bu dee teyoo ko da ngay continuer boo noppee sujjóotal ko ba ada salaam wa man lam yadri ku a asallama ndax sëlmal na am lam yu sallim wala sëlmalut sallama mu daal di sëlmal rek wala sujjóoda ale te sujjóot du ko ca war loolu daanaka jàngoon nga xaw a nuroo moom waa ah, ku julli ba àggal rek di sàkk sëlmal na wala sëlmalut na sëlmal rek mu jeex defe naa andi woon nañ ci ay détails ci sañu njeexante lu bind bala weesu wa man istankahahu koo xam ne dafa taqoog moom a asakku sikk sàkka fi sahwi ci njuumte fal yalha na na na jéllale mooy na ko wàcc rek na jéllale anhu walis ko wala islaa alayhi te déet ak defar di ko war wala islaa déet yéwén la alayhi di ko war walakin na ko waruk sopp rek an yasjuda mu sujjóot baada salaami ba ginnaaw ginnaaw sëlmal ba nee na koo xam ne nag sikk sàkk da koo sonal fu mu toll rek def naa lii def ma ko nangam nangam bu ko faale na jàpp ne def na ko rek mu jeex sëlmal naa wala sëlmaluma na jàpp ne sëlmal na euh, julli gi mat na wala matut na jàpp ne mat na waaw koo xam ne sikk sàkk da koo sonal ndax te boo toppee di ko jéem a defar dana dem ba yàq sam xel mën naa àgg sax ci nit ki dem ba bàyyi julli wala iyaasu billah wala bokk lu xaj na ci waaw da ngay ñoo ak laab la leen di dale buñ duggee woon ak dañ naan iskan soobi tëq mu fi sikk sàkk yu metti loolu baaxut waaw kooku moom deel jéllale bàyyi mu jàll rek ndax yow feebar la ci yow waaw mustankeex nga feebar la ci yow mu doon ko dara jotul nag euh, day def la gën a wóor rek waaye comme feebar moo la dal jàppal ne mat na yow bul yéwé na wala isla alayhi waaw kenn du nekk naa ko defaat kook mottali ko déedéet na jàpp ne rek mat na waaye nag euh, sopp nañu ñu mel noonu heure bu leen loolu gaaree buñ buñ ñëw di ko jéem a defar waaye buñ sëlmalee rek dañ def ba'da salaam toroxal ko seytaane nga ne ko waa almustankix mooy kan mu ne waxoo moom allasi mooy ki nga xam ne yekk suru dana bari zaalika loole minhu ci moom ya ko day sikk saaka kasiran lu bari an yekkoona bu nekkee saxaadi juum dégg nga zaada dolli na aw naqasa wala mu wàññi wala yuqin waaye du wóolu nag waaw kooku moom fali sujud na sujud ba'da salaam ba'da salaam nee na kooku xam ne saa yu julli rek sikk sàkka gaar ko def naa lii defuma lii def naa mat na matul yokk naa nangam kon kooku bu mu ko faale na jàpp na rek lam def baax na incha allah bu sëlmalee mu toroxale seytaane ab sujjoot rek wa faqat waaw mu sujjoot ba'da salaam mu ne faqat kepp fal yasjud na sujjóot ba'da salaami faqat kon bu mu jéem a defar loola naan day jéem a mottali na sujjóot ba'da salaam rek wa ida ayqana ndem wóolu na nag bi sax sahwi ci njuumte la sajada mu sujjóot ba'da islaahi ba'da islaahi salaatihi ginnaaw yéwénal julleem ga mu sujjóotal ko dégg nga bu fekkee nag wóor na ko ne koo xam ne wóor na ko ne moom juum na day defar njuumte la waaw day réparé njuumte ci biir julli gi te ba julli gi jeexee mu sujootal ko baax da salaam léeg sax xam da salaam moo cay war waaw ngi noonu masalan euh, mhm. masalan koo xam ne dafa euh, fàtte woon a jàng faatiha mu ne ba ca rakkab ñaareel mu fàttaliku ko mu ne ah kon rakk bu njëkk ba sànni naa ko rakkab ñaareel ginnaaw bu mu rukkooyee ba noppi wala sax gannaaw taxawee noonu rek waxalaa kulin daal rakk rakk bu njëkk ba dagg na ko ne mbokkuti julli daal di jàppe rakkam ñaareel bi première daal di continuer julleem xam ko noppee nag du tee ginnaaw defar na julli bo bu noppee nag faaw ab baax da salaam war ca léeg-léeg nag xam da salaam war ca mi aju situation bi rek fa in kasura nem bari na daale ko loole minhu ci moom foofu moom kat yaa tarihi da koy gaar kasiran lu bari aslaha mu defar salaatuhu julleem nga wala mu yes jut waaye du sujjóot nag li sahwi ngir jamocom ba waaw kii tamit beneen àtte la ku njëkk kañ la jàngaloon mooy koo xam ne moom day sikk sàkk kooku wóorul ne def na de day sikk sàkka naan fu mu julee rek naan est que mat nag matut kooka dañ ne ko bàyyil mu jàll bul topp loolu mat na rek jàppal ne baax na te bu julli ko jeexee nga toroxale seytaane ab baax da salaam kii nag mooy koo xam ne moom njuumte moo taxaw moom moom day juum xam ne juum na waaye njuumte la daa taxaw moom day juum rek ndax saa yu julli rek juum waaw day juum waaw kon kooka dañ naan ko lan bu ko wóoree na juum na na defar njuumtali waaye sujjóot ba nag lañ ko jéggal waaw sujjóot ba waaw bu ko wóoree na juum na na jubbanti njuumte la rek waaye bu noppee rek jeex na sujjóot du ko ca sujjóot du ko ca war hmm. kii moom wóor na ko ne juum na waaye jëmmi nag daa feebaru feebarub juum kee nag sikk sàkk rek la moom hmm. mu ne lan mu ne waman xaama ku taxaw minis na tey bàyyi koo ci ñaari rakka xam nga daa waroon taaya waaw waroon taaya mu jekk jékki jub rajaxa dellu na maalam yu faariq li fekk tàqalikuwut ak al arda suuf sa bi yeddeexi ci ñaari loxoom wa rukbatayhi ak ñaari bëti woomam fa in faaraqaha naak suuf tamaada mu wéy yar yarji te du dellu te du delsi nag wa sajjada te mu sujoon qabla salaam qabla salaam loolu mooy li ñu jàngale borom téere rahimahullahu taala nee na koo xam ne dafa julli ba am ñaari rakk mu war a toog taaya mu mu daal ne ñokket jóg bu fekkee ne loxoom ba léegi mi ngi ci suuf wala ay bëti woomam na dellu na dellu si rek toog taaya te dara du ko war waaw dafa dafa ne bëri rek fàttali ko ne ah damaa war a taaya kat na toogaat àggaat suuf taaya te dara du ko war nag àggale jullit bu noppee dara du ko war waaye bu fekkee loxoom ak bëti woomam nekkatuñ ci suuf dana bëri di dem waaw kooku bu mu dëppaat na continuer na bàyyi taaya ja rek continuer ak julleem bu noppee defal ko ab xabla salaam waaw kooku nafar bàyyi taaya ja continuer ndax bu xasee mën a bërit bay bay jóg di dem bu mu dëppaat loolu mooy lañ ko sant teewul nag bu dëppaatee ñëw indi taaya ja ba tey baax na su noppee rek mu sujjoot baax de salaam mi ngi noonu hmm. nee na lan mu ne ko fàttali ko salaatan ak julli sallaaha mu julli ko mata ma dakara ha saa yu ko fa maanaam waxtu wam ko fàttali ko rek xalaa nax wi maa ci melow la nga xam ne faatahu rawoon na ko faatathu faat na ko mooy jégalu xalaa nax wi maa faatahu ci melowam ko faate woon su ma aada topp mu baamu maa euh, la nga xam ne na nekkoon na fi waxtihi ca waxtoom ba mimmaa ci la nga xam ne salla julli woon na ko baadaha ca ginnaawam lu mu bëgg a wax nee na ak julli gu la faat saa yoo ko fàttali rek fay ko boo koy fayit nanga ko nanga ko faate woon kott nga koy fayee waaw tuqbaa kamaa faatat waaw maanaam julli gu la faat boo toogee bi yàgg ne man kat fàttaliku naa ak ak julli tisbaar wala julli gee wala nangam nangam boo amee njàpp jugal daal koy fay fi saasa moom amul heure ci saasa bul def noonu gaa yi def muy fàttali ko tisbaar naan damay comme faat na ma naaxaar ba takkusaan ma fay ko déedéet waaw loolu mën nga jëlee bàkkaar kon danga koy fay fa boo koy fayit ni nga ko waroon a jullee dara du ci soppeeku donte dangaa toog ba midi une heure ci digg bëccëg nga fàttali ko gee dutee booy julli booy fay gee ga ni ñu war a jullee gee rek nga koy jullee mooy danga koy biral waaw bul wax ne man kat ci bëccëg laa nekk déedéet yow gee ngay rek gee moom dañ koy biral yow yaa ko fàtte woon boo tëddoon ba xaaju guddi nga fàttali ko ne julliwoo takkusaan booy jóg da ngay jullee takkusaan ni ñu waree julli takkusaan mooy da nga koy yelu bul bàyyi xel waxtu wi nga koy fayee yow bàyyi xel julli gi na mu war a mel rek su ko defee nag euh, julli googu bu fekkee daa am julli gu ca tegu woon te waxtoom génnagut sopp nañu nga baamu googa waaw lu mu bëgg a wax maanaam dangaa ngaa julli da ngaa julli tisbaar ba noppi xam nga tisbaar yaa ngi ci waxtoom suma aada maa kaana fi waqti waxtu woo xam ne mu ngi ciy waxtoom moom tisbaar la ñuy doog a nodd léegi nga jóg julli ko ba noppi bi nga sëlmalee nga fàttaliku ne é man fàttaliku naa julliwuma suba kon demal fay suba boo fayee suba ba noppi ji nga julli woon xam nga julli woon nga ko ba noppi waaye ndekam waxtoom mi ngi mi ngi fi ba léegi rek baamuwaat ko ngir ngir mu mën a tegaloo daal ndax julli day tegaloo waaw ndax yow da ngaa juutal julli gi tisbaar nga njëkk julli ci suba comme fàttaliku nga ko ba fay nga suba ba noppi dañu bëgg tisbaar ji nga julli woon te waxtoom jeexagut nag moo tax ñuy wax nga baamu ko dañu bëgg nga baamu ko su ko defee mu a tegaloo waaye bu fekkoon tisbaar ji waxtoom génn na julli nga tisbaar euh, dégg nga ba julli takkusaan ba noppi ba timis nga doo ko fàttaliku suba kon kooku moom du jar ngay baamu tisbaar takkusaan ja hmm. loolu mooy maanaam summa aada kaana waxtu nga xam ne dafa maa waxtu ba nga xam ne kaana dafa nekkoon fi waxtu yi ca waxtoom fekk julli woon mim maa salla baadaha ci li nga xam ne ko julli woon ci ginnaaw sopp nañu mu baamu ko ngir mu mën a tegaloo nee na waman alayhi koo xam ne daf koo war salawaatun ay julli kathiratun yu bari sallaaha mu julli leen fii kulli waxtin ci wépp waxtu min laylin ci guddi aw nahaarin wala bëccëg wa inda tuluuci samsi fa fenk taloog jant bi wa inda xurubi jant bi li mu wax mooy lan mooy daal saa yu nit ki ko ay bori julli na ko julli ca fasaasa nag waaw loolu ñu naan naafila am na heure yuñ tere naafila naan bu jant bi fenk tere nañ la ko ci naafila ak bu jant bi tollee ci di sox loola naafila la waaye julli farata moom fay gi amul heure loolu nag ñoom tele lu bari day dal ñu bari ñu defe ne eh, julli farata daa waxtu buñ ko war fay déedéet moom amul waxtu waaw wa jawasoo fii kulli waxtin al qada waxtu yëpp dagan na dagan na nga fay ci waaw lii wax julli yu bari man naa bañ a nekk julli bari même bu nekkoon génn génn julli tamit ñoo ci yem rek moom daal saa yoo fàttalikoo ay jul rek demal jàpp fay leen amul waxtu bul xaar dara bul xaar dara kon kon la moo am waxtu yu ñu ko tere waaye julli farata moom amul waxtu mu fekkee ak fay la wa kay fa ma tayassara naka ak naka mu jàppandee rek jàppande jàppande loxo di ko ñeel nu mu jàppandee ca moom rek mën na koo fayee noona fekke jullee dafa bari lool bu ko neexee mën nay def bu jullee suba daal di fay euh, genn suba bu julee tisbaar fay génn tisbaar ba keroog mu jeex bu dee weer la woon bu amee weer mu xam ne jeex na dégg nga wala boog bu jullee suba daal di fay suba tisbaar takkusaan timis gee bu jëlee tisbaar fay juróomi julli bu jëlee taksaan fay juróomi julli juróomi julli nga fay nag day tegaloo doo def suba suba juróomi suba déedéet suba tisbaar takkusaan timis gee rek noonu ko koy doxalee nu mu jàppale ca moom waaye daal di am solo mooy na ko fay waaw na ko fay doo julli julli googu ñu naan euh, fay faat yor ay bori julli yu bari war koo fay naan damay julli fay faat mu effacel ma ko waaw bu doon loolu kay kon duñ jàngale lii waaw kon kay wax dëgg yàlla dañaan ku yor ay bori julli yu bari eh, xaaral ba safar nga ajuma nga julli ak julli mu effacé ko rek déedéet julli farata fay ko rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku faat ku faat waxtu julli eh, nen rek nga ko mën a réparer mooy fay ko képp mu jeex wa in kaanat nem nekk nañu yasiratan ñoom bor di aji néew aqala di gën a néew min solaati yow mi ci julli bis wa laylatan ak guddi badaa mu tàmbalee bi hin na ci ñoom wa in faata ak doonte faat na sax waxtu waxtu woo xam ne euh, maa woo xam ne xoo moom fii waxtu yi mi ngi ci waxtoom bi waaw nag bu fekkee ne li nga am ci bor dafa néew luy dafa néew mooy benn la wala ñaar wala ñett wala ñeent nga xam ne matul jullik bis waaw fekkee da li nga am ci bori julli gën gaa bari ñeent la wala ñett la wala ñaar wala genn julli la nga xam ne am nga ko bor léegi am geneen julli gu teew bala ngaa julli gii teew da ngay fay bori yi ba noppi waaw bala ngaa julli gii teew ak doonte julli gii teew sax boo nee su ma fayee day faat dañ naan la baax na waaye teewul rek fayal tàmbali ci ga nga njëkkoon a faat maanaam da eh, xëy suba julli woo suba julli woo tisbaar julli woo tëkkusaan julli woo timis xam nga ñeenti bor a noonu gee jot ñu noddu gee waaw bala ngaa julli gee tàmbalee ci suba nga fay ba ci timis waaw wala boog mën naa am sax ñaari bor nga am julliwoo julliwoo suba julliwoo tisbaar ñu noddu takkusaan saan kon da ngay fay suba fay tisbaar doo ko doo ko doo ko julli doo ko julli takkusaan mhm. kon loolu lu mat a ràññee la ak doonte waxtu wi da nga naan waxtu wi kat su ma ko jullu lekk day demit dañ naa la fayal bor bi ba noppi doo ko julli wa in kasurat ndem bari nañu nag ñoom bor yi nga am badaa mu tàmbale bi ma ci julli gi nga xam ne yaxaafu dana ragal fa waata waqtihi faatu waxtoom waaw faatu waxtoom bu fekkee nag bor yi nga am dafa bari luy dafa bari mooy mat na julli bis ba teg mooy daal mat na juróom benn waaw am nga am nga juróom benn julli yoo xam ne jullee goo ko am julli gu teew kon da ngay julli gi teew ba noppi doo ko fay booy fay nag da ngay tàmbale ca ga nga njëkkoon a faat teg ci ga ca tege te ku ci nekk da koy liqaamal nag julli gu ci nekk da koy liqaamal waaw mhm. maanaam daal ci gàttal daal saa yoo amee juróom benni bor ci julli am gu teew rek da ngay julli gi teew ba noppi doo doo ko tàmbalee fay man dakara ko fàttali ko salaatan ak julli ci biir ak julli fasadat kon mu yàqu haadihi ci moom waaw man da nekk ci ak julli di ko julli am geneen julli goo fàttali ko jullee goo mu ne kon gii yàqu na loolu da ko tënk mu gàtt nii rek waaye ca dëgg-dëgg demewul noonu laaj na ak ak ak ay teqantal waaw am na kaa yu muy am rek waaw maanaam ci ñaari julli lay amee mooy ñaari julli yu bokk waxtu tisbaar takkusaan wala timis ak gee waaw kuy julli takkusaan nii ci waxtu wi nii nga fàttali ko ne julli goo tisbaar kon takkusaan gi moom day yàqu su ko defee faaw da ngay julli tisbaar doo ko julli takkusaan gi naka noonu bu fekkee yaa ko tey takkusaan jot na xam nga ne julli goo tisbaar nga tey ko julli takkusaan a subaa takkusaan ji baaxut de faawut da ngay jullee tisbaar mu jiitu naka noonu jullee goo timis te fàttewoo ko nga tey ko julli gee gee ga baaxut de waaw gee nga jiital gee ci timis te yaa ko tey te it nekkut julli yooyu fay seen biir waxtu la moom du baax kon saa yoo kàbbaree tàmbalee julli nga fàttali ko ne julli kon gee yàqu na saa yoo kàbbaree tàmbalee julli tisbaar euh, takkusaan nga fàtt nga fàttali ko ne julli woo tisbaar ba tey kon yàqu na kon kooku noonu ndax loolu dafa dafa nekk lu war ba noppi nekk sart tisbaar ak takkusaan ak timis ak gee nga jiital tisbaar teg ci takkusaan ak jiital timis doog cee teg gee dafa nekk lu war ba noppi nekk nekk ab sart boole ca ngir takkusaan baax faaw tisbaar da ko war a jiitu ngir gee baax faaw timis timis da ko war a jiitu ba mu des nag bu fekkee da koo da koo fàtte bu fekkee da nga koo fàtte moom baax na waaye ba tey boo leen tegalee mu gën a baax wala ngaa julli takkusaan ba sëlmal doog a xam ne julli woo tisbaar kon da ngay julli tisbaar boo noppee ñu nga sopp ñu ñu sopp nga baamu nga baamu takkusaan ja ndax yow téyoo ko dañ ko sopp rek nga julli gee ba sëlmal doo ko fàttali nga julli woo timis gee ga baax na de waaye sopp nañu nga boo fayee timis ba noppi nga baamu waat waaw julli yu bokkut ak yii nag ni ki suba ak tisbaar waaw nga tegale leen loola boo ko defut da nga ci am bàkkaar bu dee yaa ko tey nga tegale maanaam jullik suba ak julli tisbaar nga tegale leen kooku moom boo ko defutoo ni da nga am bàkkaar waaye du tee mu baax maanaam dañoo noo do nga mu wóor ne la julli suba ñun la ah julli suba fayal suba ba noppi doo ko julli tisbaar nga tey ko julli tisbaar ba noppi doo ko dem julli ji suba julli gi baax na de waaye da ngay am bàkkaar tey boo noppee sax teew ñu sant la nga baa mu tisbaar ja ngir mu tegaloo noonu lu mel ne takkusaan ak timis nga tegale leen lu war la waaye du ab sart nag boo jullee timis doo ko julli takkusaan it du moom ñu ne julli nga baax na waaye da ngay am bàkkaar te bàkkaar nag mëtt a xeeb kon loolu mooy wa man dakara solatan fii salatin fasadat haadihi alayhi kon noonu nga koy déggee mooy na fekk muy ñaari julli yoo xam ne euh, al mustarikatayni al xaadiratayn te fekk na teew sax ni sax bu fekkoon dalaa faat niki da ngaa fàttaliku ne tisbaari démb ak takkusaani démb julliwuma leen kooka nga tegale leen jiital tisbaar doo ci teg takkusaan ba tey dafa nekk lu war rek waaye du ab sart boo jiituloon takkusaan teg ca tisbaar dana baax de waaye da ngay am bàkkaar nee na wa man daxika ku ree fi salaati ci biirug julli mu baamuwaat julli wala mu yucit te du baamu nag al wudu a njàpp ma xilaafan li abi xanifata rahimahullahu taala maanaam koo xam ne dafa julli ba yàgg mu ree ree gu am kàddu nga ne dafa ree a julli ga yàqu la waaye njàpp ma nag yàquut ndax ree moom du yàq njàpp abu xanifata moo tax mu yox foofu moom mi ne eh, ree xàqataay day yàq njàpp moo tax mu tuddaale ko rek waaw waaw sëñ Tuubaa nag radiyallaahu anhu woon julli di ree daal kooku ku bëri caaxaan eh, moo koy def rek waaw wa in kaana bu nekkee moom waa joojoree maa imaamin di ànd ak imaam tamaa daan na continuer julli ga wa aada tamu tamu baamu bu julli ga nekkee maanaam bu fekkee ne waa dafa ànd ak imaam jekk-jekk ree ree am kàddu julleem yàqu na de waaye imaam koy tënk du mën a génn waaw na ànd ak imaam ci ci kaw julli gu yàqu bu imaam sëlmalee nag su ko defee mu mu baamu ak julleem moom abadan waaw loolu nag nee ñu am na ay sart bu njëkk ba mooy na fekk waxtu wa yaatu waaye bu fekkee bu ànd ak imaam ba waxtu wi day jeex kon du ko def day dagg julli ki ñaareel ba moo di lan na julli ki ajjuma bu dee julli ki ajjuma la mu reeree gu am kàddu day dagg julli gi daal di yéenewaat àndaat ak imaam naka noonu bu fekkee tamit ne du reeloo mbooloo mi waaw bu fekkee ne bu continuer noonu day continuer di ree di reeloo mbooloo mi kon subaa moom mu dagg julli gi defaru ba jekk te ragal yàlla te tàmbaliwaat julli gi te bañ a reeloo mbooloo mi ñu ñett sart yooya mooy in kaana wa in kaana maa imaamin tamaada wa aada waaw wala shay'a déet dara alayhi di ko war fi tabasumi ci muuñ kese waaw muuñ nii rek muuñ nga xam ne tuñ rek la ne loolu dara waru ci lu dul dafa bari bu bari nag mën naa àgg ci yàq julli Euh, wa nafqu wal mooy ëf fi salaati ci biir julli kal kalaami mais dafa yor atte bu wax rek wala aamidu aji tay ja li daalika ñeen loolee mufsidun aji yàq la li salaati ñëw julleem ga maanaam ëf waaw ëf ngelaw nii moog wax ñooyam bu dee yaa ko tey julli ga yàqu bu fekkee tëyew ko ab sujoot moo cee war ab sujoot moo cee war wa nafqu kal kalaami waaw wal waxuñu nag ngelaw li génn sa paxee bakkan yeeg ak léeg-léeg nga yooyu moom ëf carrément ëf boo moom mu ne waman axtaa ku moy alxiblata xibla aada mu baamu fil waxti ca waxtu wa waaw koo xam ne euh, dafa julli dàkk xibla ba noppi ba jullee ba àggal mu gis ne ni jublu daal xaw naa des kooka waxtu wa bu jeexagut na ko na ko baamu waaw waxtu bu jeexagut na ko na ko baamu mhm. waaw mooy euh, def na la ko waroon baamu ko nag nga bàyyi xel ne dañ ko dañ koo sopp rek dañ ko sopp baamu yi ngay dégg yëpp waxtu jeex na baamu jàppal ne luñ sopp la hmm. bu fekkee daa julli ba ci digg bi nag mu yëg ne mooy na xibla bu fekkee tuuti la waaw waaw tuuti la man naa mën naa daal di jubbanti rek waaw bëriwut naa daal di jubbanti rek noonu hmm. kon kooku na ci waxtu wi waaw bu fekkoon nag da amul kenn koo laaj wala da nga nekk ci barab boo xam ne o dëgg yàlla euh, daal ci ba àll àll te réer nga te amoo kenn koo laaj incha allah da ngay xool foo jaabe xibla rek nga jublu foofa julli mu jeex tàkk waaw doonte naa ba sax dañ ne la foofu di xibla yow sa jaan sa jaan wàcc na waaye kii nag mooy ki nga xam ne moom euh, dàkk na ba euh, xam ne jàpp ne fii mooy xibla ba mu noppee mu gis ne da koo dafa mooy xibla ñu ne ko baamul bu waxtu wi jeexagut baamul dañ ko sopp wa kadalika noonu la demee de man salla ku jullee bi saw sawbin najisin ci yére yu sobewu aw ala makaani wala ci ab barab najisin bu aju sobewu ne naka noonu ko atteb kooku mu ko atteb ñaari ñi ñooyam mooy koo xam dafa julliwaale sobe ay yéreem dafa takk sobe wala barab bi mu jullee dafa am sobe moom xamu ko mu julli ba sëlmal doo koy xam kooku tamit mooy bu waxtu wa jeexawut sopp nañu mu baamu rek nii sax julli ga baax na baamu ko ko sopp am maa bu fekkee da ngaa julli ba ci am na sobe te waxtu wi da ngay dagg de waaw da da ngay dagg julli gi eh, xëy na eh, incha allah boo daggee julli gi nag boo noppee nga baamuwaat ko boo noppee nga baamuwaat ko mooy boo ko fàttalikoo ci biir julli gi wa kadalika ni ki noonu la man tawadda ku jàppe bi ma in ci ndox najisin buy aji sobewu muxtalifin mu di mu ñu wuute fi najaasatihi ci sobewam ne naka noonu koo xam ne dafa jàpp ci ndox moo xam ne dañoo wuute ne sobe la wala du sobe loolu day day maanaam day junju lim fi jàngale woon xam nga daa waxoon ne xalilul maa yi yu najisuhu xalilul najaasa wa in lam tuxayyirhu waaw naa noonu la ko noonu la ko jàngale woon waaw kama in qalilin xallathu najasatun walam tuxayyirhu maanaam ndox moo xam ne dafa toll ci jàpp dong sobe dugg ci mu xam ñu xam ne moom sobe dugg na waaye nag soppiwu ko Ah, moom daa jàpp ndox moomu sobe la wala boog dañoo wuute ci ak sobe woom fekk la gën a wér nag mooy ndox moom moom baax na ndax ndegem soppi amu ci rek moom baax na dañoo sib nga di ko jëfandikoo bu fekkee am nga meneen ndox moom nag moom nag mel ne daa bëgg wax ne ku jàppee ndox mu mel noona eh, kooka taamu nañu nga baamu waaye nag la gën a wér moom mooy taamu kooku moom sënduñu ko mu baamu sënduñu ko mu baamu waa maaman daal koo xam ne tawadda jàppe na bi ma in ci ndox moo xam ne xad yara soppeeku na lawnuhu aw meloom aw taamuhu wala cafkaam aw riixo wala xetam aadamu baamu salaatahu julleem nga abadan ba faw wa wuduahu ak jàppam ma loolu koy amul werante moom mu ne nag bu dee koo xam ne moom dafa jàppe ndox mu baaxut ndox moo xam ne caf gaga wala xet moom daal xam nañ ndox mii baaxut nekkul ndox mu ndox mu mën a laabal kooku moom daal ci jàpp daal di julli julli ga baaxut njàpp ma baaxut day jàpp waxuma la sax day julliwaat waaye day jàppaat maanaam ku jàppee daal ndox moo xam ne mënta jàpp waaw ndox moo xam ne mënta jàpp kooku moom baaxut waaw doonte ndox mooma dong la moom daal menn ndox la am te ndox mi mënta jàpp ah du tax mu mën caa jàpp de faaw day tiim rek waaye du tax mu mën caa mu mën caa jàpp naka noonu ko am ndox moo xam ne mënu koo sang daa war a sangu ba yor ndox moo xam ne jàpp dong la man ah du ko jàppoo naan day julli day déedéet ndax kon xanaa kay day tiim julli heure bu amee ndox mu sangu rek wallahu taala aalam